gis ben article buñu bind koku mu ne euh, président de la république euh, Macky Sall dafa zappé secteur informel bi ci discours de fin d'année ma jàpp ne loolu wax la bo xamné ni ay nit yo xamné ni ci liñu ñu muy dialogue bi peut-être lolu bokk na ci lo xamné ni nii neexu tax ñom ñu wax te ñooñ bokkuñu ci secteur informel bi parce que ma yakarne comité de pilotage dialogue national du président de la république daf ci nit man mu en tant que marchand ambulant établi ci si commission secteur informel bi ma ne kon que di citer ay si si ay discours parce que nañu citer si discours fekk na du am

mais japp nañ né si li waral li sabab dialogue bi man ci sama gis-gis moy que waxtanu wax dañ fay waxtane li tax man ma que en tant que marchand ambulant di yëngu fait secteur informel bi ñu am ay jafé plus ñu né foofu dinañ fa waxtane lepp lo xamné ne jafé jafé jafe man fa yobbu dama su def quatre personnes ñu duggal ma man ci au titre du secteur enfermé. ñëpp gis nañ ñu bind numéro un. man gis naa ne teg nañ ma sama place te commission yi di ñëw tamit jàpp naa ne ñun am nañ contribution bu bëri buñ ci mën a jouer mais parce que man dégg naa sama xarit euh, sama nijaay et moom mu ne 10 million lañ leen di fay par jour si loo xam ne nii commencé gul ma jàpp ne ñeneen ñiy jóg di wax tamit ay nit la yoo xam ne ni ñooñ dañuy wax pour nasaxal affaire bi wala yàq affaire bi ñun kenn dàqu ñu xeexaa ah, ñun xamante nañ bu baax a baax ñi nga xamné ñom ñoy dem marche autorisé ak ñi nga xamné dañuy dem marche non autorisé euh xamna ñi nga xamné ne tamit durant les sept ans ñom dañu def face ak Macky Sall reculer nañ wala reculer wuñu mais juste su fekké né ñun dialogue bi ñu dem ni ñun man ci sama ci sama ci sama bop man demuma si dialogue pour intérêt.

fi ma mën a dem maa ngi fay dem fi ma mënul dem sama ndaw bi fa nekk ma waxtaan ak ñoom pour mu dajalee ñoom seen ay jafe-jafe ñu boole ko suñu cahier de décharge bi nga xam ne moom la ñuy jébal le président Famara Sagna pour mu jox ko le président Macky Sall mu jàppale jaaykat yi parce que franchement franchement parlant ñun ci ay jafe-jafe rek la ñuy nekk dëkk bi metti na euh, yombul en tant que jeune jeune boo gis muy ñafe pour jéem dara da nga ko war a jàppale nga recaser ko fenn définitivement mais pas ay recasement provisoire comme ni ñu koy defee nii chaque instant tamit ñuy jàpp jaaykat yi di leen bunduxatal di leen sonal di leen japp di yobbu police di leen faylo 6000 francs loolu metti na trop ma propose ma ma profité occasion bi ma wax loolu parce que su fekke ki dafa xey yor 12000 francs mu jënd ci bagage 10000 dese 2000 nga yàpp bagage am yóbbu ko bëgg koo fay ci bëgg koo fayloo 6000 loolu metti na. en plus le ministre bi nga xamné mom moy Abdou Karim Fofana lu mu jël ni na ci def ndank parce que ñun jaaykat yi. kenn kenn kenn kenn kenn buggul nekk si mbedd mi rek a à à vie ku sañoon dangay am sa boutique nga toog foofu ainsi de suite mais nañ dawal yërmande ñu may ñu tuuti ñu xool nañ def mais xëy di yëkkati ay nit rek noonu pour setal te amoo foo leen teg tamit wax dëgg yàlla loolu moom rafetluwuma ko nuñ ci mën a jàppale nañ ñu si jàppale. fu mu nekk nii xam nga normalement dañu waxoon dañuy xaar installation président faamara Sagna bon moom installé nañ ko si fan yële passé jàppatuma jour bi. léegi normalement dañ waxone le 2 lay commencer mais légui ñi ngi xaar ba le ba le 10 mais su fekkee né li nga xamné mom moom moo sénégalais yi muy muy muy que foofu lañ ko wara waxé man lool moy sama téway foofu mais du question de khalis wala wala intérêt personnel encore une fois wala leneen comme nit ñi di comme nit ñi niñ koy waxé man kat la sénégalais yépp xam nañ loolu man kon jàpp ma jël nañ ñeneen ñoo xamné ni ñu ñu warul jël la. si coobare wala recasement wala leneen man si sama table laa jóge ci sama table laay dellu kon man kenn gënuma yey si secteur informel bi